na ngeen déglu ma delloo fent ab daaj ba saahir dani baatin julee gënu maag damay wëlbati mboolem way ni soodaan ba fem yépp di baatin bu di seetaan laaj ku jiital li ma jiital lu laa xalaat ma mbir ma mu jiital jërul ay ngaañ mu faf jógu ko tuubal malaaka day gaañ te ànd ak ma àndal ñu dem tuubaa nal jébbalu moo gën toroxu su ku ànd ki ma àndal lu neex laaj sëriñ bee jara àndal bu leen defal ànd bi yàlla ak sëriñ Tuuba yonnen di sa wommat nga jublu Tuuba laa baarikum yaa unaasu tuubu wa kunu ma sayqi law anibu hayyaa ka badrin ne leen ko taafeel waa jawwar muslimin ma ko téeméer ku seetal ngërëmam de lu la dangay saabu di ceebuy naloo puuj faaj tere joxe doy yëpp ba def yoo koy neen duniyaa li ci biiram du tee ma ngay biin kilee jar pase duniyaa te jëm ci uxuraa te sakkuy ngërëmam ndax nga làq ba suraa dee jar di ko way mooy xaddiimu xaddanaan demaa cib géwélam moo seleng lu baajaam bul faadilu xaqan qadimu taaxaan wasaasibu tuabibi wanaa najaan su tubban la balaa wax ndegam xamoo daam yaaramuk sangi mbàkkey sangu bu sëriñ daam caqum kër maaram mooy diggal ba ñuy teew ak ñi fi teewul ëdal du den maas way ndaa mala gàttoon te gétti waa faas te raw yaarami faasa kër jaale moko naas alaa lam tara aynaaya misla dayqin كمالا Bamba du seen na ngeen dëkk lu dundam bi borom aras maas Sëriñ maas na Bamba du seen mappandoo du seen maas ñeent këlu bilam bi borom arasmaan lim jël bu ma lam wax dana ko njambaas ba ngeen xam ni Sëriñ Bamba laa di rambaas biñ bee jara way Mbàkke moo yeyoo taas maa yab ci saxaaram te laaju may paas ka nuroog Mustafa ba ci mool te di xul wangalul settaxul ba dim njool gaa yu buuti ñi àttay na muy jata gamaar te baatam dani collet ba di melax yaar rëyul tuutiwuloon gàttuloon ba di mu duñ daaree ko kekkul danaa saxoo mooñ aw siraabi salaamin anaana laylaan dadaa muuru di yor yatti gaana yooy joor rawan yaa nga fa daa féete wàllu nay joor sumuuraay bani melxet sikkim bani laas saflaani wurus moo ka jekk ay baas sul peccit fubul di aw ñuul ram waa kër a tax ni ñaani mbooloon te leeru ku yaramam tax na ci ya xeereer ba daa ci baatim ba daa ci ceeñeer te ab xar kanamam day niro ku magum weer te nuuru ku bakkanam day niro gorosu naar gëtëm yaa gën a lamsal du rokku nu feesoo borom ker sala doxu diriisoo liñ Bamba du bëtëm la daa xool di jàllal bi di lamsal du xoole niw mool doxiinam dafa sempal mu jekk ay peer daa wax di ko ndànkal te baat ba day riir nelaw tànk yërim bul lasul fabul nooj sa xom njaab fataxoon lex yàlla fa ba sew rooj ti juy guum yi du jiggi ti yoonu jàkkaam ca tempam ma la xalaate yoonu lislaam walam yen saw ma seen bi ardi tuubaan ولن يبلغ طولا جبال ليبان بلي بل برلون منظر القناتين تلمن وتقلكم وقد ليدي له نور جلال يري جلالا له نور جمال يري جمالا في توافر du jàmbaar amul soxla ci capitaine wu réewi soldat